waaw comme ni ma ko waxee rek bu ngeen gisee Reug Reug rek am na lu ko waral yoonu murit moo amati ndam waaye ku xam bis bi xool bis bi a xam ni Serigne tubaa am na ndam l'islam am na ndam waaye nag bis bi tey kiñ ko jagleel mooy alaaji Baara moom Cheikh Mouhamadoul Fadal ñu toog ak kenn koo xamante ni si yoonu l'islam xam nañ ko liggéey bi bàyyam liggéey bitim réew ak ci réew mi ñëpp xam nañ ko muy soxna Asu Mbàkke Cerno moom Cheikh Mamadul Murtada mu fekkook soxna Jatu moom Alhaaji Baara ak soxna maam Awa nga xam ni tey njabootu Serigne tubaab gépp kenn desul muy góor muy jigéen ñëpp teew nañ ci bis bi fan lañ koy defee muy Masaalikul Jinaan gii nga xam ne Alhaaji Baara moo tegoon première xeer bi tey rek alo Dakar ñëw seet si leen fas leen ne dégtal lépp loo xam ni am na ci bisub Alhaaji Baara Mbàkke mii nga xam ne moom lañ ko jagleel soxna Astou ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum ñu lay sant bu baax euh, di la gërëm ndax yow sunu xarit nga yàgg lay sant tey nag am euh, mbégte bu rëy tey teew fi ñu jël euh, bi. sëriñ Baara mu sëriñ Alaaji mu sëriñ Fàllu Mbàkke waaye bala may wax ci sëriñ Baara damay sant yàlla bu wér sant sëriñ Touba di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ci wér di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér di wax rek ne euh, sëriñ Baara mii ñu tey bis bi gis nga bis bi tey ni tool toll tey yéeme na li nekk ci mbooloo nit kenn mënu laa wax ni mu toll man nag damay sant yàlla ndax dama àndoon ak moom ñëw ñu ànd fii teg si xeer bi tey incha allah ñu ñëwaat nii fekk si waat ko di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram ndax sëriñ Baara ku ne xam ne ne euh, liggéey la sëriñ Touba maamam ndax liggéey bu rëy la la la fi def te xam naa ci dara ndax yàlla dafa dogal muy sama mu doon sama xarit di sama lépp li muy doon doon sama mag doon doon sama kilifa sama xarit la woon kon tey bu ma feggoog ay doomam nii di samay doom di soxna Jatu ak soxna Maawa ba pare nag ma ànd ak nag waa daayira bëgg fàllu ñun ñoo sol déguisement yi ku sol li rek yaa ngi ci bëgg ñun ñëpp bëgg fàllu lañ ñun daal lii lañ sol tey teew fi ànd ak waa bëgg fàllu yi ñëw ci bis sañ baare bi xam ne kenn la won ci ñun jërëjëf eh, ndax ñun États-Unis lañ joggé ni sax ngir bis bi rek ñor gum ñu ñor ñu daal di ñew lepp la ma doon def dama ko bayyi ñew pour fekk ci bis bi tay eh, Serigne Mbacke yu fay wara yëkëti ciabi caabi ji jox ko Serigne muntaka tay ñu ñu war ko eh, inauguré incha allah àjjuma waaye bala may jall ci lool damay sant nak président Ablaye wad ndax lu toll ni nangami hectare mu yëkkati ko jox ko Serigne Touba. def naa ñetti guddi Dakar de xanaa semaine dakaar bi nag fay na ko fay na ko nag ñetti guddi Dakar yi semaine Dakar bi fay na ko nag tey jii semaine nu yàlla bi ñu nekkee ci lii ku fi ñëw ñetti guddi Dakar yi moom semaine fay na ko kon dañuy sant yàlla bu baax ci fekk gi ñu ko fekkee. Deng, nga dañuy sant yàlla bu baax di sant Cheikh Mounou Moutala mi ñu boole Serigne Touba ba tey ñu mën a nekk fii Serigne Touba kontaan daal lañ am lii ñu def nag jullit yëpp lañ ko defal ñu may sëñ Bamba ji li may wax rek l'islam amati na ndam waaye Serigne Bamba tam amati na ndam ndax ci xolu Dakar lañ ko def ci digg Dakar gi lañ ko def ku dib rek yaa ngi ci biir jumaa ji moom duñ ko intégré rek tëj ko tëj ko déedéet dañoo jël imam Serigne Mountakha Yaakaar jël na imam Serigne Bassirou Lo Serigne Bassirou Lo Serigne Moustapha Lo ko jur ma Serigne Ndaa Abdourahmane Lo doomi Serigne Touba ñu bari Serigne Ndaa Abdourahmane Lo leen jàngal Serigne Moustapha Lo moom soxna Musli mi ko jur ak Serigne Mourtala ñoo bokk waajur wu góor waajur wu jigéen kon indi nañ fa imam bu mat imam yaakaar naa ne indiwuñ ko fi ñu tëj jubaa ji déedéet dañ ko fi teg pour toujours jullit yëpp moo xam foo mën a jóge ngay ñëw di waxtu yëpp muy juróom waxtu yi ko lislaam santaane noonu la ko Serigne Mountakha santaane noonu la ñu fas yéene def noonu la mu jullit fi nekk yëpp kontaan daal la ñu am ak mbégte ak sant bu baax di sant sëñ Moussa Fall sunu doom nga xam ne moo fi eh, xalifa sëriñ Alaaji Baara teew def bu rëy nag ñëw nii ak famille que sëriñ Fallou gépp gis naa fi ñoom sëriñ Laat sëriñ Mamoun ñoom ñëpp ñu ngi nii seen naa leen tey daal dañoo ànd nag mbégte goo xam ne daal mënuñu la ko wax xam ne dañuy ay bëgg ay bëgg Fallou ci loolu mooy tax waaw ay bëgg fàllu ñu ngi lay jant sant bu baax a baax soxna jatu tey ku ne xam na ni bisu sëñ Ba du lewat la góor ga doon bu baax ba doon wax naan la mu doon wax naan bis bi dafa ala daw me baara mbàkk ku ne am nga ci kàddu ndax alaaji baara taxawaayam ci lislaam alaaji baara taxawaayam ci yoonu murit ñii ñu toogal nag di njabootu alaaji baara ñu toogal ak seen wayjuru góor seen wayjuru jigéen muy soxna asu ñi ngi ñaan ci barkeb seexul xaddim bis bi daal ku fi ñëw yàlla nga am ndam soxna si nag looy wax ci Allo Dakar nag ah Allo Dakar nag damaa bég ci ñoom nag yéen moom maa ngi leen di suivre de maa leen di suivre bu baax sax yéen Allo daal lu ngeen bëgg yaa ko xam yàlla na leen ko yàlla defal kontaan nañ ci yéen yal na leen Serigne Touba taal ba ñëpp gis leen comme ni ñu gisee jumaa yi Masalik Jinaa ji ci barke Serigne Touba. jërëjëf Mbacke kooku nag moo doon soxna su Mbacke mu Cheikh Mouhamadul Mourtada.